Euh, salaamaaleykum mbokk chanteur internet yu Sénégal yi ñu ngi fii nii tey seet si salaam Diallo ci wàccaayu màggal gi te mu dalaloon ñu ñu am mbégte aussi di ko remercier Salam Diallo ñoo ngi lay euh, bàyyi nga ñëw internet yu Sénégal yi. bisimilah rahmaani rahim barke Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul yéen waa Sénégal ñoo ngi leen nuyu eh, di leen jox seen wàccuwaay di nuyu internet yëpp waa Sénégal ak waa diaspora bi di leen souhaiter un très bon màggal de Touba. gis euh, tey salaam dangay gis ne kanam gi mbégte lay wone dinañ ne màggal màggal oblige mais nan la salaam di waajalee màggal gi. waaw bés la boo xam ni mooy sunu fête de l' indépendance nu euh, le jour bi nga xam ni Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul am victoire ki nga xam ni dafa bëgg Seydina Mohamed ba dàkkantale boppam Khadim Rasoul xasidaam yépp di ko ci tagg donc bés la boo xam ni. képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah war ngaa bég ndax bés bi la l'islam am ndam donc saa yu jotee nag da koy gis ci kanam yi ci xol yi ci bëñ yi ci ceeb yi ci ndox mi ci lépp luy xéewal waaw maanaam eh, eh, eh, mala yi sax dañuy békk ndax bés bu mag bi Ah, c'est la, c'est la, c'est la victoire de Cheikh Ahmad Bamba et de la victoire de nous Mourides adeptes de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. bu ñu waxee salaam Diallo xel yëpp day dem ci sëñ Saliou euh, lan nga yoon yan njàngat nga nga ñu mën a wax ci nit ku tedd kooku noonu. waaw loolu day maa ngi koy sante suñu borom du sama ngóora ndax man ab taalibe rek laa di dongo bu tekkiwul dara duma dara bëggoon sëriñ Saliou. dem ba ci moom ni ko aslamtu nafsi jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira mu doon koo xam ni dimension bi mu toll ëppoon dayo ndax comme ni ma ko waxee toujours rek ci Sénégal daaw jéeg ci màggal gi ngeen bi ngeen ma jëlee ca jumaa ja man leen dafa doon jëmm joo xam ni dafa téye àdduna ba pare dëddu àdduna ci jikkoom ci colwaayam ci doxoolam xam nga ni ku téye ay milliards te boo ko gisee la mu sol matul sax dix mille francs CFA loolu tolluwaay la donc bëgg diine l'islam accomplir mission bi nga xam ni moom la amoon yàlla nañ ko yàlla fayal ca àjjana Serigne Saliou Mbacké. bu nga xam ne Salam Diallo la doon dundee màggal gi jamono nekkul ci jamono sëñ Saliou. waaw màggal moom mooy li ma la doon wax rek sëñ bi saa yu nu ñëwoon màggal da nga koy gis mbégte bi taal bi di am moom lay am. boo duggee ci kër gi foo toll di di dégg xasida yi kër gi fees dell ak ay bernde ñi mu leen di jox mbubb ñi mu leen di jox ñaan mooy suufam soos mu doon yor eh, muy kun kun ga ko doon wax maanaam di def ay bernde bëggoon ay tout tànk lool sëriñ Saaliw ci leen koy xam man de day mosuma xam benn doomam boo xam ne dëkkoon naa ak moom amul benn doomam boo xam ne dëkkoon naa ak moom yenn saa yi dama fa doon tase ay doomam sax miinuma leen woon waaye ci rang bi may rang pour dem di ziyaare ay doomam ci la ñuy ci la ñuy ànd pour te dire ni mu yar gi nekkoon ci moom moom moo dem ba ci njabootam sëñ Cheikh yàlla na fi yàgg te wér soxna Aswaalo sëñ Moustapha Saliou sama sëriñ sëñ Bas sëñ Jili ba ci sëñ Talla ba ci soxna Momi fi mu ne ay doomu sëñ saaliw mën na laa romb sax. te doo xam ne kii doomu Serigne Saliou la maanaam xoolal ma yar yooyu dimension yooyu Serigne Saliou ku mu yar doo reew doo bew doo doo doo bon waaw moom li mu yar ak defar ko ci àdduna kenn xamul nu mu toll ñun xanaa dañ ni am chance ñu dékk ñu micro rek ñu wax ci sëñ Saliou waa am na des milliers et des milliers de personnes yoo xam ni tey ginnaaw yàlla yonent bi moo leen defar donc ñun dañ koy sant rek du ñu mës a doylu nag ci moom waaw li mu bëggoon mooy nit ku nekk yaru nekk ci yoonu siraatikal mustaqima am diine am lislaam set sell di julli di jàng alxuraan di durs ci xasiday sëriñ Tuubaa yi donc la mu digle woon rek te mënuñu ko waaye ñoo ngi koy jéem waaw. boo ñu mënoon a wax benn yenn anecdote yi nga xam ne yow jot nga koo dund ak moom pour yenn internet yu ko yi ñuy suivre yenn anecdote yi nga xam ne jot nga koo dund ak sëñ bi. dafa bëri. te moom laa doon wax Seydina daaw jéeg man bëggumay wax ci sëriñ bi pour man du ay teggin ndax li may liggéey ndax ku ma gis salaam li ngay xalaat rek mooy li may liggéey xeebu ma ko nag ndax yàlla moom la ma jox ma koy liggéey ku nekk sa liggéey xeeb ma li may liggéey waaye teggin ni moo tax bëri na ay anecdote yoo xam ne yu ci bëree bëri am na ay doomu aadama sax yoo xam ne yu ci bëri maa leen doon jële ba Ndakaaru indil leen ba Touba teg seen loxo ci ci loxo Serigne Saliou sans intermédiaire léegi rek fii ngeen ma fekk kër soxna moom yi gis naa fi ñi nga xam ni boo ñëwoon kër sëñ Saliou ñoom ngay gis ñu taxaw ci ginnaaw sëñ Saliou sëñ Abdoulahat Jaxate Góora Jéey sëñ Baara Dem Baye Moussa Ñang ñoom ñëpp ñoo añandoo nii ci kër moomi Kebe gi ñu nekk soxna moom itam nekkoon koo xam ne moom doomu sëriñ Saliou la woon kër gii ma dal tey vingt cinq ans gi fi lay dal ba ma fii dal matuñu woon juróom-ñaari nit waaye léegi gis nga ni muy feesee ba xat ndimbalug Serigne Saliou la soxna moom mi ñu koy gërëm di ko sant gis nga lii bi ngeen ñëwee da ngeen waa xanaa salaam yow lii lii lan nga ma ko waxee am na la ma ko waxee de ku may summi nga ma wax waaw lii lu fi lu fi sax la maanaam bés la boo xam ni ku mën da gis Touba nit ñi li ñu am yëpp dañ ko def ci berne génn seen i néeg joxe seeni i lal ndax sëñ bi loolu la digle donc sëriñ bi. li ma lay mën a wax rek benn anecdote dafa am ay jamono mu métti woon torop suñu côté sama kóllëre bu ñu wax ma penda sekk mook coon sekk ñoo bokk ak baay ma ndekete dañu téye baat bi mu ma koy nëbb mu ma daal yow li ngay woote sëñ Saalu tey xam damaa bëgg booy dem sëñ Saalu nga yóbbaale ma am ku ñuy wax Pape Mbaye étincelle moom moom étincelle couture ba tey mi ngi fi ànd ak soxna suñu wax Fat Seck keroog bi ñuy dem non seulement amuñu njëgu essence mais amuñu oto suñu benn xale rak bu jóge woon France tudd Cheikh Mbuub moo indi woon benn 4 x abal ñu 4 x bi am soxna su naan Aminta Ndiaye may ñu njëgu essence station bu nekk Ouest Foire fa la defee essence laata ñoo dem ma ne xaarale ma woo sëñ bi ma wootee parce que sëñ bi moom daawul yor téléphone waaye ma woo Xaadim Cuun doomu Cheikh Béthio jot ko man ko sëñ xaalim man de dama am ñu ma àndal bëgg ñu gis sëñ bi te it soxla naa sëñ bi ndax fi mu nekk metti na trop sama wat mu ne man li ma jaaxal mooy àllarba sëñ bi du recevoir ay gan maanaam daara yeeg noppalu ci lay noppalu ko man ko waa ah, dimbali ma rek nga waxal ma ko loolu mun ma ah naa ko wax waaye sëñ bi du recevoir kenn man ko dimbali ma rek mu daal di dugg wowaat ma ni ma man de damaa waaru man ko ndax lan mun ma sëñ bi moo ko waxee yow la daf ni ma mi ngi lay xaar ñu jël oto bi daal di dem bi ñuy yëgg ngaabu sëñ xaadi woon sëñ bi di yéen lay xaar ndax dafa bëgg a fatu mais lu gaaw gaaw Pape Mbaye diggante ngaabu ak buntu ko sëñ Saliou xaw ma dafa naaw xaw ma lu mu def ñu ñëw ñu ni kapit kapit ay buntu kapit ay buntu kapit ba ubbi yem ci sëriñ bi sëriñ bi soonu keroog ndeysaan bopp bi sax dafa euh, njañ comme Baye Fall te di jël tànk bi teg ci kaw di ko teg ni am benn góor gu toog noonu ni mu toogee noonu ma gis ay millions yu nu tegle nii xaalisu millions yu nu tegle sama xel yëpp nekk ci xaalis bi ndax dama bànkoon benn paa dend moom ma paa bi ma dégg paa bi muy wax paa bi jumaay kumpentum dëkk boobu keroog laa ko mës a dégg muy soixante quinze million de francs CFA mu yëkkati ko jox ko góor gi pour mu yóbbu ko kumpentum bàyyi Moussa Niang mi nga xam ne ñoo nekkoon léegi di añ keroog damaa yoroon caméra bu ndaw mooy caméra yu yàgg yooyu di filmer mu may wax bu ma filmer sëñ bi ne ah, bàyyi ko mu def li ko neex sëñ Saliou ci boppam Mapel la ñëw tàllal loxo Pape Mbaye ñëw tàllal loxo fatsek Seck ñëw tàllal loxo ñuy jooy pour te dire que xoolal xoolal xoolal dimension sëñ Saliou Mapel na ma nga xam ne daa amoon problème bu baat sëñ Saliou génne suuf mara euh, benn mouchoir suuf ubbi ko ñaan takk jox ñu kenn ci ñun de yëkkati ko jox ko Mapenda Mapenda keroog day mëq suuf si mel ni kuy mëq mu raakee daan ni ma sama baat bi dañ ko téewoon man ko yow war nga ma ndax war nga ma wax li xew mais gis nga ba nu ñibbisee billaahi wallaahi wa taala i kenn xamu fu mu toll te mun ko maam fi mu ne nii danoo sonn lool mu ne waaw ah, sallaaw dinañ ko ñaan suñu borom xool ma nit koo xam ne dafa taqaloog sunu borom waaye loo ko mës sa wax rek waaw ah, sallaaw dinañ ko ñaan suñu borom yàlla mi nga xam ne moom sàkk loolu daal laa lay ñamal te nga bañ ma laajaat beneen nan yam foofu ndax boobu neex na. asalaamaaleykum <laughs> boo amoon ay dénkaane yooyu dénkaane bokkum taalibe yi nga xam ne dañoo ñëw fete ci mbégte gi te mbégte safaar gi mbégte màggal yi yan kàddu lay doon. waaw bis yu mel nii bu amee dañu war di xalaat di defaraat jikko yi nul n'est parfait dans la vie jamono neexul c'est partout dans le monde entier na nit ñi tàppe xol yi na nit ñi tàppe xol yi ñi mag yërëm ñi ndaw ñi ndaw jox cër mag ñi dara jaaru foo xëccoo àdduna jeex na ba pare ñi fi doon xëccoo daaw ñu ci bëri wàcc nañ liggéey ci mbënn mi ci ci li nga xam ne mooy mooy mooy pandémie bi yàlla na fi gaaw jóge sëñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg senegal nañ ñëpp delluwaat tàppe xol yi yërëmante bàyyi wax ju bon bàyyi wax ju ñaaw bàyyi xuloo bàyyi xeex te xam ni lépp dafay jeex lépp dafay jeex man de képp koo xam ne bu fekkee am naa baat Sénégal mooy jàmm ji nga xam ne moom la muy tuddee muy Abdou salaam yàlla na ñëpp am jàmm ci barke Serigne Saliou loolu rek laa bëgg. Euh, buñ la seet wax musique gis nañ ne temps yi bi am na ay impact aussi Abdou Salam di génn aussi bëreetul par rapport ak temps jamono avant Covid bi euh, ñu bëgg a xam Salam Diallo fan la toll ci ay projet ak ay yenn réalisation yi nga xam ne bëgg na koo def pour yenn fan sami waaw lii nu dal ñu musicien doomu aadama yëpp la dal. képp koo xam ne yaa ngi doon yëngu bi feebar bu ñëwee boo doon am 1000 cinq 500 donc ñun ñëpp la euh, nañ delluwaat xel ci yàlla jéggalu suñu borom di gërëm njiitu réew mi nga xam ne aussi bi lii amee yëkk na koom-koom daal ñu koy jox nu les artistes loolu tey dundal na suñuy njaboot te atténuer na suñuy charge ñoo ngi ko ci gërëm ndax bu ko neexoon mu bañ ko def ndax pandémie bi ñëpp la laal. ñoo ngi koy gërëm di ko sant. ah les projets par rapport yan bu nekkee album wala yi nga xam ne yaa ngi koy wàcc. waaw xam nga génne naa benn clip bu ñuy wax jàmm ak salaam ah donc album la war a génn en décembre incha allah maa ngi produire tous les mercredis au gainde tous les mercredis maa nga fa les samedi maa ngi benn restaurant bu neex Oboba donc pour le moment noonu lay def di xaal sama album incha allah nag octobre bi damay dem France rek pour benn acoustique bu ndaw rek dellu ndax mënuma toog te du ma génn du ma jël avion jéggi ndox waaw. ñu bàyyi la nga joxe sa dernier kàddu pour internetu Sénégal waaw waa Sénégal moom ñëpp nee na ma xanaa yow Sénégal dañ lay fay ma leen noonu ñoo ma ñoo ma jox ci respecté ma ma respecté leen rek euh, nit ku nekk fa ngay amee jàmm rek te ñëpp salaam ñëpp laa donc maa ngi gërëm waa Sénégal di gërëm waa Sénégal di gërëm doomu aadama yi. xam ni que man ñëpp laa bëgg bëgguma kenn bu fekkee lii ma fi wax heurte na doomu aadama maa ngi jéggalu ab taalibe laa rek ak doomu aadama boo xam ne tekkiwuma dara waaw maa ngi ñaanal daal ñëpp am gudd fan ak wér ñi tëdd ci hôpitaux yi jóg ñi ne ci kaso yàlla ubbi leen te ñu bañ fee dellu si ah ñi nga xam ni ñooy wal way dawlu yi yàlla yërëm leen te yéexiñu rawatina sama mag di coon balaago sekk yàlla na xippee àjjana ci barke Seydina Muhammad jërë ngeen ok